jàmm et mu bañ a egg ci euh, benn euh, dimension bi alors ci situation bi nga xam ne nii moom moo am ci réew mi ak euh, report bu élection présidentielle dinañ ñëwaat tout ci li nga xamante ne nii moom mooy report bi ak fi mu toll actuellement waxtaan bu jëm ci diggante Ousmane ak usman Sonko ak Macky Sall mais balaa loolu Euh, ci réaction yoo xam ne nii jot nañ ko am euh, ñu bëri génn nañu moo xam ñu nekk kilifa diine euh, moo xam ñu nekk artist ak ñeneen ak ñeneen ba ci ay activiste génn nañu di wane seen ñàkk ànd ci report bu élection présidentielle ba ci ay journaliste mu am kenn koo xamante ne depuis le début ñu bëri ñu ngi ko doon ñu ñu ngi ko doon laajte wala dégguñu ko woon ci coow li muy Babacar Ba jiite li nga xamante ne nii moom moo di forum du justiciable yàgg am taxawaay boo xam ne daan na situation yu bëri yu doon am ci réew mi actuellement ci situation bi euh, ci moment boo xam ne ñu bëri en tout cas ñu ngi dénoncé li nga xam ne ni moom moo di report élection yi di wax ne nañu respecter le calendrier électoral moom ci euh, réaction am dafa jàpp ni daal actuellement dafa am benn lynchage médiatique international boo xam ne moom moo nekk di am contre le Sénégal et puis moom ci boppam mooy wax mu ni le Sénégal ne sera jamais une porte d'entrée pour les lobbies qui travaillent à saper euh, nos donc moom ni mu jàngatee mbir mi daal waxut sax daanaka ci euh, situation bi ci rapport ak yooyu mais daal dafa jàpp ne euh, médias yi nekk bitim réew actuellement dañu nekk di lyncher euh, Sénégal et que dañu bëgg a li nga xamante ne nii moom moo di image bu président Macky Sall mu mel ni daal dafa jug jug dafa taxawee taxawaayu défendre le président Macky Sall ci situation boobu naka ngay jàngatee loolu. bon fekkewuñ lépp mais lu bëri fekk nañu fi. Mm-hmm. Babacar Ba Babacar Ba. euh, je le connais pas trop mais je le connais. Mm dafa am ñu ne ki lay ki lay ki lay ki la defaral ki la defaral dina jafe lool pour nga nga ŋàññi ko. Mm-hmm. alors from le justiciable moom il a eu à bénéficier su ma juumlee euh, d'une nomination du président de la République. Oui. quand vous êtes nommé par le président de la République, soit vous êtes in, mm -hmm. soit vous êtes out. Mm Et ce que vous dites, soit vous le en faveur du président, mhm. soit vous le en défaveur. Et vous le dites en faveur, vous êtes dedans, vous le en défaveur, vous êtes out. Mhm. mais fii xam nga lan moo fi am soxlawul sa nga ne kilifa diine bi wax na. Mhm. journaliste bi wax na. politicien bi wax na walla baykat bi wax na xam nga lan moo fi am. benn mbir moo fi am lu ci des yëpp ay commentaire la. Mm-hmm. mbir bi mooy loo pi lépp bu ñëpp doon wax. Mm-hmm. te li ñuy wax du dëgg c'est c'est fois zéro yàlla moo ko wax. Mm-hmm. nee na lépp lu ngeen di def même bu ñëpp àndoon te nekkul dëgg àdduna du yàgg ba mu nekk dëgg. dëgg bi mooy xam nga mooy lan. dëgg bi mooy constitution bu Sénégal moo ñu boole moo ñu yëlif point. kenn mënul féetee kawam ci kaw mënul ko féetee kaw. constitution bi ne Sénégal ñaari mbir moo fi am. disposition réglementaire. avant disposition réglementaire yooyu. Mhm. mu ne am na disposition législative ñaara yooyu moo am ñaar. Mhm. ci wàllum loi ñu ne léegi disposition réglementaire. am mhm. na de waaye disposition législative moo ko féetee kaw. la preuve disposition législative ci lay ci la ñuy sukkandiku. pour créer ce appelle des dispositions réglementaires. disposition législative mooy lan xam nga mooy la loi constitutionnelle. mooy les lois organiques. mooy. les codes code civil mmh. code pénal code de procédure pénale code de famille code de nationalité ainsi de suite loolu mhm. mooy les les dispositifs législatifs mhm. du yëfu nit maanaam du da koy liir nga ne Masamba wala Mademba mhm. sénégal yëpp ci yem ak lu ñu tuddee des dispositions réglementaires loo xamante ni man dañ may nommer wala ma am ci fonction ma toog fa nekk autorité administrative wala ma nekk ministre wala président. Mhm. ma signé décret wala ma signé arrêté loolu la ñuy tuddee les dispositions réglementaires ñu ne la booy signé décret. Mhm. wala ngay signé arrêté wala communiqué da nga koy da nga koy signé nga sukkandiku ci li ñu tuddee les dispositions législatives ci constitution bi. Mhm. ci code ak ci loi organique yi. donc pour wala ne constitution moo féetee kaw. constitution bi ce qu'elle dit c'est quoi. constitution wante ñaari anam lañ ko mën a soppee mm. par voie référendaire ak par voie parlementaire mu wax bu ne nan lay amee mm-hmm. mu ne bii boo koy soppi mm-hmm. mën nga dem assemblée de waaye bii boo koy soppi mënoo dem assemblée de ñu ne ko mm-hmm. fan ngay def ñu da ngay woo askan sénégalais yëpp nga ne leen wax leen waaw wala déet ñu ne la lan la loolu lan la fan la ñuy waxee waaw wala déet. Mhm. wala fan la ñuy demee assemblée. parce que boo gisee ñu jox assemblée ñu ne ko am nga possibilité nga nga soppilu nga modifier yenn affaire yi ci constitution bi. Mhm. parce que dañ ne. l'Assemblée nationale est une sorte de représentation du peuple du des Sénégalais. ñu tuddee les dignes représentants du peuple. je parle mhm. pas de ces députés ah. ces députés ne sont pas dignes représentants certains. dañ ma baal mais ñenn ñi nekkul de dignes représentants. parce yow tu peux pas me représenter à l'Assemblée nationale. Mm -hmm. tu fais tout le contraire de man li ma bëgg. tu n'es pas mon représentant. et pourtant c'est ce qui s'est passé ak li nga xam ne ni euh, moom mooy report élection yi député yi nga xam ne comme ni nga ko waxee ñoom ñoo ñu war a représenter foofu ca assemblée nationale ñoo fa nekk di voter loi boo xamante ne nii euh, defe naa ni li ëpp wala euh, l'écrasante majorité ci askan wi ànduñu ci doxalin boobu nga xam ne nii moom la ñu doxal y compris ña leen fal ci élection législative ya ñu jóge et pourtant tey ñoom ñoo voter li nga xam ne nii moom moo naqari sénégalais ba ñu wàcc ci mbedd mi ci report élection c'est ils ne sont pas forcément des dignes représentants du peuple nekkuma di globaliser ah. il y a mm-hmm. des députés qui sont dignes représentants du peuple cependant il y a d'autres députés qui sont indignes de représenter le peuple sénégalais parce mm-hmm. que le peuple ne se voit pas dans ce qu'ils font eux comme mm-hmm. démarche dans leur propos dans leur comportement et dans leur démarche donc ils ne sont pas les représentants du peuple officiellement ils sont en train groupe et une coalition. li ma bëgg a wax sànq mooy xam nga bu ñu la waxee ne su ma la waxee ne su ma la waxee bu ñu bu ñu bëggee am nekk ci jàmm. Mhm. nañu nekk ci dëgg. dëgg bi mooy constitution daf ne. Mhm. lii du mbirum mandat exemple. soppi durée wala nombre bi wala calendrier républicain. Mhm. mënoo ko soppi ci assemblée nationale mën nga ko soppi mën nga reporter élection mën nga changer. mais ñu ne mënoo ko changer ci nga jaare ko ci ay député mhm. ñu ne foo koy jaaree da nga koy jaaree ci waaw wala déet ñu tuddee ko référendum mhm. la voie référendaire mhm. comme li amee woon en 2016 am nga en 2016 xam nga lu tax mënuñ ko lu tax yóbbuñ ko assemblée parce que as constitution bi waxul ne ci circonstances yi assemblée moom mooy addu parce que assemblée bu ñu bëree ba bëri cent soixante cinq nit lañ ñu nous sommes dix millions ñu ne lii lu tax soixante cinq nit mënuñ ko décider c'est parce que dafa sérieux da ngeen di laal lu ñëpp bokk. Mhm. loo xamante ni nee nañ c'est intangible. Mhm. dafa am clause d'éternité mën nañ ko bu ñu demee ba di ko laal. Mhm. du ay député ñoo koy laal. li ñu koy def rek mooy da ngay woo sénégalais yëpp nga convoquer parce que président constitution moo ko jox. ñuy tuddee le pouvoir de convoquer. le collège électoral ñu ne sénégalais yi kaay leen ngeen addu. kaay leen ngeen voté kaay leen ngeen tànn. léegi boo ko defee léegi voix boobu da ngay naan waaw wala déet est-ce que ñu reporter élection bi sénégalais yi ne waaw wala déet. ñu mhm. ëpp ñu ne waaw bu ñu gën tuuti ñu ne déet après ñu ñu reporter ko. ñu ne mhm. est-ce que nangu ngeen ñu wàññi durée mandat bi sénégalais yi wala wax waaw wala déet moo tax le conseil constitutionnel lorsqu'il a été saisi en 2016. pour mhm. avis. sur la question du septennat. Mmh. quant a sa réduction le conseil avait dit tout simplement. monsieur le président vous êtes très bien gentil. vous avez dit aux Sénégalais que di nga wàññi sa mandat. Mhm. mais dommage vous pas également toucher à ce mandat parce que le mandat est en le, le mandat présidentiel en cours. Mhm. est intangible et il le reste pour toujours. Mhm. mënoo ko wàññi mais li waa léegi pourquoi mandat ba mënul wàññi 2016. nga mën ko yokk en 2024. ce même mandat c'est le même mandat. parce que même fait même description même qualificatif. ce mandat était en cours ce mandat en cours on a voulu le réduire. aujourd'hui on a voulu l'augmenter et mmh. la mm. constitution dit un mandat présidentiel en cours il est intangible il y a ce qu'on appelle les clauses d'éternité mmh. et mm-hmm. les clauses d'intangibilité ouais. on ne peut pas toucher modifier un mandat en cours mmh. sinon lorsque on est appelé et on doit le modifier on mm-hmm. doit faire de sorte que que mu jaar ci li ñu tuddee par la voie référendaire et que c'est la voie référendaire c'est des Sénégalais c'est toi c'est moi c'est l'autre tout le monde mm-hmm. tous les électeurs qui disent ok on on on n'est pas d'accord on le mais mhm. mënoo jël assemblée nga ne leen sëriñ bi yow xam nga ne li nga def assemblée bu jaaree yoon. Mhm. xam nga député yi Sénégalais yi da Sénégalais lañ yëpp xamul dañu yëpp Sénégalais yi. Mhm. mës nañ fi préparer loi yàggul dara ñu ne député yi. loi boobu jàllee xam lan lan moo doon am. mooy le président mën na jékki-jékki rek quand il le veut. Oui. il dissout l'assemblée. député xamul tax am lu ñu def. dañ ne déet duñ ko voté xamul tax bañ. seen intérêt. dañ ne ni boo voté loi bi. Mhm. le président de la république à tout moment. Mhm. xam nga constitution instant bi joxul pouvoir président ñu ne ko mën nga desul heure bu la neex waaw mais fee dañ ko ne bu jàlloon dañ ko day naan dañ ko naan président dañ koy jox doole ñu ne ko heure bu la neex boo yeewoo ndekki bi neexul sax bu la neexee nga dissoudre assemblée nationale. Mhm. parce que dañ ko ne à tout moment. à tout moment. tout moment chaque instant boo ko sentiree. député yi bañ ñu ne mukk ko dafi am ñëpp a taxaw. opposition pouvoir ñëpp bañ. lorsqu'il s'agit de l'intérêt du Séné des Sénégalais globalement mm -hmm. ils refusent de, de dire non mais lorsqu'il s'agit de leur intérêt mm-hmm. globalement ils disent non moo tax dañu war a xool mm-hmm. le mode de désignation des députés ou bien mm-hmm. de ceux qui doivent nous représenter à l'Assemblée nationale warul jógee ci kaw dafa war a jógee ci base mooy man du président moo ma naan waa Kaolack bëgg naa kii doon seen candidat du président moo naan bëgg naa diw mu doon candidat Dakar. mais plutôt waa Dakar ñoo ne naan. Mhm. kii doy nañu. parce que li ñu gis ci moom mën nañu représenter kon bëgg nañu mu doon candidat et après c'est comme ça. d'accord mais du sommet à la base c'est pas ça. c'est de mhm. la base au sommet c'est comme ça. d'accord alors. ci waxtaan yi nga xam ne ni ñu ngi koy wax entre président euh, Macky ak Ousmane Sonko ci moment boo xam ne daanaka ñu bëri ñu ngi wax ci euh, ab pëcc entre parenthèse ñu bëri jàpp nañ ne euh, tuxal élection yi dafay doon loo xamante ne nii salfaañe constitution bu Sénégal la ci moment bi nga xam ne ñu ngi wax ci wàllu dal di wax ci daanaka waxtaan ak lu jëm ci déggoo ci ñi ñi seq mbir mi lan la ñu war a pré privilégié ci jamono ji respe wu constitution wala waxtaan ba juboo xam nga pitch pitchis. Mhm. Euh, c'est c'est un mot anglais. xam mhm. nga lan moo tax ñu ne leen gaay gaañ bi putsch la wala putschiste la. Mhm. parce que constitution. dafa am lu tuddee le pouvoir il il est on le confie aux civils. maintenant les civils lorsque dans leur irresponsabilité. ou bien dans leur impossibilité de gérer bien ou à bien Mm-hmm. les missions yi ñu leen jox. ñu tuddee mm-hmm. des missions régaliennes. oui l'armée mm-hmm. qui est républicaine prend ses responsabilités. Oui. parce que la constitution ou les constitutions prévoient luñu prise du pouvoir par par les armes. Mmh. donc quand tu prends le pouvoir par les armes. loolu la ñuy tuddee la violation de la constitution et on dit il y a un coup d'état constitutionnel. Mmh. il y a un coup d'état militaire. parce que c'est un militaire qui a agi contre également ce qu'on appelle l'esprit de la constitution. Mmh. maintenant dans si un Sénégalais ou le président de la République viole mmh. l'esprit et la lettre de la Constitution ça c'est un coup d'État constitutionnel parce que tu as violé la Constitution et son esprit et sa lettre donc mmh. dans ce cas il y a un coup d'État constitutionnel qui n'est pas militaire mhm. mais commis également plutôt par un civil mhm. maintenant ce qui a lieu ici c'est quoi c'est que munoo munoo bëgg di jàmm am si réew mhm. te doo xool wala doo bëgg wax dëgg bi. Mhm. gis nga on a beau à vouloir dialoguer. Mm -hmm. mais tant qu'on dit pas la vérité absolument c'est c'est c'est néant mon cher. Mhm. c'est nul et sans effet et nul effet. Mhm. parce que dëgg pour mu mën jur jàmm. pour mën a pour jàmm mën a am. il faut dëgg nekk soubassement bi. et dëgg bi mooy tey on doit dialoguer d'accord mais sur quelle base et ci lan lañuy dialogue Mhm. parce que lépp lu ñu fi waxtaanee ci Sénégal su suñu loi su suñuy loi organique suñuy code yëpp prévoir na ko. Mhm. code yi yëpp wax nañ ko amul dara lu bees lu ñu mën a xëy wax rek. Mhm. te te te baaxul. maintenant nag dans un pays buy màgg. am na loo xamante ni euh, manquement lay doon. bu dee ci wàllu organiser élection. tout a été prévu organisé. ñu ne lii kii moo koy def. bu dee remise de parrainage DGE moo koy def. bu dee dañuy wax ñaata sénégalais ñoo nekk ci liste électorale yi ñu ne la c'est la DAF ñoom ñooy wax bu dee kan mooy convoqué corps ñu ne c'est le président ñu ne kan mooy validé ak invalidé ñu ne c'est le conseil constitutionnel. ñu ne également kan mooy fexe ba lu mu jaar yoon. ñu ne mhm. c'est la Sénat waaye ku nekk donc kuréel bu ne am na. sa wareef ak sa liggéey ak sa pouvoir ak sa compétence. Mhm. waaye léegi pourquoi constitution bi moo wax loolu. Mhm. constitution bi wax loolu mu ne waaye léegi nag ñi war a wax ñi war a def ñii bu ñu waxee kenn du wax. d'accord mooy conseil constitutionnel article 92. bu ñu waxee kenn du ko teggi maanaam waxu. sain la. Mhm. donc pourquoi léegi ñu teg fu bëgg indi leneen. Mhm. c'est-à-dire que tant ñu ngi nekk di masla di waxante loo xam ne lu dëgg. fii rek la c'est-à-dire qu'on va tout droit à l'impasse nga mbëkk miir bi ñëwaat alors que mbëkk miir mënoon la ñàkk. d'accord bu mën a ñàkk nag mooy nga respecter constitution bi c'est aussi simple. d'accord merci beaucoup. ñu bàyyi plaisir di la nuyu di la jaajëfal. Mhm. comme mu koy faral di waxee rek su dee juum nañ benn yoon. di ko jégalu l'intention n'est nulle